yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg tey xibaar yu wóor gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seen i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallo. bismillaahi rahmaani rahiim qul liman maa fi samaawaati wal ardi qul lillaah kataba alaa nafsihi rahmah la yajmacannakum ilaa yawmi alqiyaamati laa rayba fiih alladiina xasiruu anfusahum fahum laa yuuminuun walahu maa sakana fi llayli wannahaar wa huwa samiicul aliim qul gayra allaahi attaxidu waliyan faatiri samaawaati wal ard wa huwa yutcimu wa laa yutcam qul innii umirtu an akuuna awwala man aslama wala takunanna minal mushrikin qul inni axaafu in asaytu rabbi cadaaba yawmin caziim man yusraf canhu yawma idin faqad raximahu wa daalika alfawzu almubiin وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده wa huwa alxakimu alxabir sadaqa allahu alazim aoudu min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokki jullit mbokki taalibe yi delsiwaat nañ niñ ko baaxoo defee at mu jot saayu xew-xew bu rëy bu màgg bii di bëgg a ñëw jubsee muy bisu booy daw yi ñu di ko amal at mu jot ci ndigalul xalif général des mourides a cheikh mouhamadul muntaka yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te wéral ko ak njabootuk sëriñ Touba gépp waaye ñu di ko def itam ci ndigalul sëriñ ahmadul muxtaar mi nga xam ne fii ñu koy defee ci daarul xudus ci moo fi nekkal cheikh mouhamadul muntaka nekkal fi njabootuk sëriñ mouhamadul moustapha gépp di ko def tam ci turu Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy jëwriñu pàkk bii di Daarul Xuddoos ak ci turu Serigne Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma di ko def itam ci turu Serigne Moustapha Mbacke moom soxna Astou Buri ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy président fédération bii tudd Ittihaadu Atbaayil Xadiim li taawuni wa tamassuki bi diinil xawiim mu di fédération des groupement religieux et culturels de disciples de Cheikh Ahmadou Bamba te wilaya nekk ci biir ñu tàmbali woon ko nag bu yàgg ca jamonoy Cheikh Mouhamadul Amin di ko doxal ba aksi fii ren nag ñu jàpp ko ci fanweeri fan ci mois de décembre bii ñu nekk tey jii nag ñu daje fii ak kuréel yi nga xam ne naka jekk danoo bokk ñoom ak ñoom ab liggéey lépp lu ñu nekk ñu nekk ci ak nun waaye ñoom it lu ñu nekk ñu nekk ci ak ñoom ñu di benn rek mu di kuréelu Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéeyu jumaa ji ak lépp lu ci aju ak daayira bi nga xam ne mooy daayira Safinatul Amaan bu Kéré Mbay ak daayira Mafatihul Bisri bu kër sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi teew na ci jotaay bi nag sëriñ Mahamadan Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde faatma mi nga xam ne ci fédération bi moo ci yore lépp lu jëm ci wàllu social ak wàllu développement. tey jii nag waxtaan wi niñ ko bëgg a danañ jox sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane mu wax solos bis bi suñu noppee ñu jox sëriñ Cheikh Diop Kellel mu woote ci turu wilaya bi ak woo kilifa yëpp suñu noppee ñu jox sëriñ Xaadim Mbaw mu wax ci turu association yi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom wala daayira yi ñu àndal ci wàllu liggéey bi. suñu noppee ñu jox waa daayira Muxaddamatul Xidma ci euh, sëriñ Abdul Ahad euh, Bousso Thierno suñu noppee itam danañ jox soxna Faati Xariloo mu wax ci turu soxna Ndey ma Mbàkke mi nga xam ne mooy présidente wilaya femme nationale kon sëriñ Ahmadou bismillah bismillahi rahmaani rahim barakatu Cheikhul Xadim bokki jullit yi bokki talibe yi yabootug lislaam ak fu ngeen fi mën di nekk ci pàkki suuf ñoo leen di ñaanal yërmande suñu borom ak njëggalam barkeb Sëriñ Tuubaa di yëkkati sunu kàddu rek di fàttali bis boo xamante ne ni yàgg nañ koo ànd ak yéen te yitte ju du dara lu dul ni sunu borom moo diggee woon ni ku dem doo delsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu jàngal ni képp ku dem say jëf dagg na waaye mu xamal ni mënees na koo ubbiwaat def ci aw yiw ci bàyyi fi njaboot gu baax gu lay ñaanal sa gannaaw sëriñ Tuubaa itam xamal ne mboolem ñi tëdd koo ci fëgg tey laaj ko lu mu gën a bëgg mooy del siwaat àdduna kon del si mënta nekk nu fas yéene nag doon doomi jullit ñëpp ci féete leen ci ñaan ba keroog nu leen di fekk ñu ciy tàllal loxo nag mboolem umma islami yi bépp foofu waay man di nekk nga xam ni yitte ji loolu rekk la jàng alxuraan jàng xasaayit istixfar salaatu ala nabi ak bépp baat boo xamante nit yaakaar na ci aw yiw wala muy lu muy joxe ci àllam ñoo ngi ci tàllal loxo ñëpp parce que yéene defal jullit ñëpp jullit ba jëkk a wàcc ab liggéey ba ci kiñ mu jorob leen ñaanal yërmaande suñu borom aku njëgalam loolu rek mooy mooy yitte ji ñu bëgg koo ànd ak jullit ñëpp Tuubaa lañ koy defe nag ngir ni Tuubaa lañ dëkke te sëñ Tuubaa wax nit def lu baax fépp la baaxe waaye Tuubaa la gën a sakkane suñ borom taw feexale nu dëkke Tuubaa di ko fi def waaye fépp fi waaye mën a nekk te am yéene ji rek danga lay tàllal loxo lu ci waay man wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy déglu ak a seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di sof suñuy ziar ak suñuy nuyoo rek ci mbokk mi njëkk jël kàddu gi mel na ne ñi mat a tudd ñëpp tudd na leen li sabab jataay bi itam suñu amul njaay ngiraan wax na ko léegi te mooy mbooloo mii di wilaaya bi leen yàlla dafay tawfeex ñu xalaat bis bi ngir sos ko loolu ca jamonoy Alaaji Baara Mbàkke la woon yàlla na ko yàlla dolee ngërëm ñu demoon fi moom gaaral ko ko mu sant ci lool bég ci lool wax ci wax ju rafet ànd kok nu itam ba mu fi joge bi fi jógee itam sëñ Sidi Moxtaar tooge jataay bi moom itam yeesal ndigal loolu li ci sax waxoon ne yéen a ngi def lu mat a def ndax way dawli ku leen di ñaanal ñu di la ñaanal kon ku fi bëgg a yàgg na nga leen di ñaanal moom itam noonu la ko ànd ak nun ba mu fi jógee sëñ Muntaxa Mbakke mii fi nekk yàlla fi yàgg te moom itam bi ñu sosee bis bi 2008 ba léegi ñu ngi ko ànd ak moom yaakaar naa ku dellu ci archive yi di nga ci xam lu bari mu toggee ci xilaafa gi léegi itam at mu nañu yëgal ko ko mu yeesal ndigal li wax ñu ne dina ko ànd ak nun bis bi nag ni ko sëñ amul yaay waxee léegi bisu ñaan la ñaan nag day loo xam ne farata la rawatina nag ñaanal ñi nga xam ne dañoo dawlu ji bis bi nag mel na ne itam bis la boo xam ne mënees na koy def bis bu ne waxtu ne ndax ñaan moom amul bis amul waxtu waaye buñ ko bisal buñ talee bis wutal ko waxtu di ci dajale mbooloo mi dañoo jàpp na lu mbooloo di def ànd di ko def moo gën a sakkan moo gën a barkeel loolu moo tax ñu di ko woote waaye fu waay nekk rek mën na ko faa defee bis bi itam day jëmmal rek li nu yàlla di nett ci alquranul karim ci dëkkaale bu rafet bi amoon diggante ansaar yi ak muhajirin yi ci dimbalante ak yaatalante ak dënn baada aouzu billahi min asheytaan rajim wallazina tabawa uddaara wal imaana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun waaye itam dafa daf caa teg na itam wallazina jaa'u min baadihim yaquluun rabbana agfir lana wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan li amanu rabbana innaka raufun rahim mu mel ne kon yàlla wallazina ju njëkk ja génération boobu moom jàll na waaye nag wallazina jaa'u min baadihim yàlla dafa wax ne ñooñee ña ngay wax ne yàlla yàlla na nga jégal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nu jiitu ci lislaam ji ñooñu nag ñun ñii ci bokk génération yi ñëw seen gannaaw yëpp ci lañ bokk loolu kon day jëmmal waxi suñu borom jooju tabaraka wa taala bis bi itam di jëmmal itam euh, yërmaane yi nga xam ne borom Tuubaa amal na ko mbindeef yi ba tax mu bind na yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa haadi an rada loolu itam yërmaane rek lay jëmmal loolu tax na kon ñi ngi ci tàllal loxo julli yëpp di ci woo ñi ko naan àndal ñëpp muy rabitatul madaris alquraniya fi Sénégal di ci woo daaree kaamil yi ñu daan àndal yëpp ak daaree alquraan yi di ci woo daayira yëpp itam waaye di ci woo itam kuréel yi ñu ko daan àndal yëpp itam di ci woo seexi yoon rek kilifa yoon wi yëpp di ci soññ itam sec euh, daayira yi nga xam ne itam ñu bi di président daayira yi ñu soññ mbooloo mi te waajal leen te itam leen ñu teew ci bis bi waaye ñi ngi soññ itam section yi nga xam ne baaxoon nañu ko ànd ak ñoom di soññ itam mboolem jullit ak fu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye itam ñuy fàttali bu baax ak a soññee ci li nga xam ne baaxoon nañ ko ci bis def ci bis bi muy di ci maye deret ngir bàyyi xel ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ci hôpital yi te soxla deret te ku xam na ne maye deret day yemoo ak sauver bakkan kon loolu ñu ngi soññee bu baax a baax a baax ñu ngi ko daan ànd itam sëñ Abdourahmane Mbacke ca Daarul Moussi moom ma nga ca liggéey ba ak sëñ Abdou Dieng ca Njaareem ak ñeneen ñoo xam ne nii itam xam naa jotaay bi lu mayee ñu leen waaye daal képp ku ñu àndal bis bi ñu ngi lay soññ bu baax a baax ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu ak ñiy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di leen ziare bu baax di leen yëgal ak a fàttali bis bi nga xam ne waa section wilaya bu Touba ñu ngi ñu ngi koy amal muy doon le 30 décembre 2021 fii ci Darou dos ñuy soññ mboolem daayira ci biir dëkk bi yëpp ak mbooloom jullit ñëpp fu ñu mën a nekk ci ànd ak ñoom ci bis bi muy bisum ñaan ak a fàttaliku ñi nga xam ne dañ fee bàyyi ko mu mel ni fu fi jullit nekk rek mën nañoo ànd ci ñaani mu am alxuraanul karim la wala xasaay di seel xadim ak mboolem ñaan bu waaye mën rek mu def ko te yéen a jullit ñool yëpp buñ mënee jot ci lim bi incha allah dana baax ñu jotli ko ngir xam fi mu toll ba bu déwénee mu doon ab soññee ci ñun waaye képp ku ne ci biir Touba ak li ko wër te mën a teew ñu lay soññ bu baax a baax ci teewaay bi ci bis bi fii ci Darou Khoudoss ànd koog ñoom nañ ko daan àndee fukki at ak ñett yi jàll yëpp àndandoo ci njàng mi muy ci lewaawul xamdi ak ci ziyaara yi ak ci maye deret yi naka noonu yitam ci fàttaliku ñi nga xam ne dañ fee bàyyeekoo ngir mën a rafetu suñu dundin kon ñi ngi soññ boolem jullit ñëpp fu ñu mën a nekk rek ci ñaani góorgóorlu ci baax a baax xam ne bor la bu ñuy leble boo xam ne kenn ku ne bëgg nga ñu fay ko yàlla na yeex ñu góorgóorlu ci njàng mu baax a baax ànd koog ñoom nañ ko daan defee ci at yi jàll yëpp di ñaan suñu borom tabaaraka taala dimbali bañ àgg ci ak jàmm te romb ko ak jàmm te yàgg koo def di soññ itam ci mboolem daayira yëpp ñu gën a jàpp ci liggéey bi ngir day dëggal bennoo nga xam ne suñu borom dañ koo digal di wane ne ñu ngi koy jëfee kon ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax àndandoo ko ndax aljamaatu rahma lañ wax te xañ na fu nit ñi yaa ngi naane way dawl yi waaye àndandoo ñaan ko nag mi genn ñaan buñ jàpp ci benn bis mën naa gën na yaakaar ci nungu ga kon ñu ngi soññ a asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci turu soxna Ndeye Fatma Mbacké mi nga xam ne moo jiite ci fédération bi jiite secrétariat bi nga xam ne moo aju ci jigéen ñi soxna si nee na mi ngi soññee ci bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy amal ci at mi di sant bu baax nag sunu borom yàlla di julli ci yonante bi ci fekke gënu waat bis bii ba toogewaat ko ni nu ko tooge noo ngi ñaan sunu borom mu mayaat nu kàttan ñu egg ca bis ba ba jëfe ko nañ ko daan jëfe soxna si nee nag mi ngi fàttali mbokki taalibeem yëpp ak mbokki jullitam yëpp ak mbokki section yëpp bis bi bu mag bi kenn ku nekk loo mante alxuraan na nga ko jàng soo ko mënut it na nga wut ku la ko jàngal nga jox ko sa addiya loo mante xasida na nga ko jàng soo ko mënut na nga ko jox ku ko mën mu jàngal la xasida li ci des nag ay askar la kenn ku nekk war ngaa mën a am benn boo xam ne nii war nga caa mën a defub lim ngir yàlla ak jëmmi ña dem nañ fàttalikuwaat bu baax daal te xam ne ko foofa daal amut yóbbanteel ma amut dara luy rek lañ am ci ab yóbbante ci boo xam ne du lukk biir na ne suñu borom dana ko nangu ndax moo ko moo ko moo ko wax. kon nag soxna si nee na na ngeen ci bàyyi xel ca lépp luy po bum ca ànd lépp loo xam ne dana ay caaxaan bum ca ànd ndax foofa daray caaxaan du fa dem daray po du fa dem kenn ku nekk na nga mel ne tey jii yow lañ koy defal ca fasaale ca yéen sa bopp nag ndax jamono nga xat si ca bis bi dañuy dem ba. xatu xatu bindee fi dana dem foo xam ne kenn dootu talati kenn kon bis bii nag kon na ci ñëpp fara parafito fasaale fas ci yéene ñaanal ña jiitu ji waaye fasaale ci yéene ñi nga xam ne ñoo ñoo féete gannaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki yi fi teew yëpp leen siyaar di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te ko di am mbégte it ci teew ci jotaay bi ci turu daaira Muxaddamatul Xidma ak ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi di Serigne Afia Bousso ñu ànd ak secrétaire général bi ngir teew ci woote bi nga xam ne yàgg nañ koo ànd ak euh, daaira wilaya ci bis bu am solo bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun sa bisu bopp la ndax dafa yell ci jullit bu nekk yell na ci jullit bu nekk ngir njariñul àddina la àddina njariñul àllaaxira di initiative bu am solo boo xam ne xalaat tamit mënu koo kawe ci bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy say bokk jullit yi fi bàyyi ko lu ama am solo la euh, Sëriñ Tuuba soññe na ci daale na ci wax ne luy jariñ la nit kiy dund waaye rawatina ki faatu sidduha aw yanfahu maytan fil qubur wa yanfahu al ayya wa yujibul ujur sagam day dalay jariñ yow miy dund rawatina ki faatu day waral ab yool tamit loolu kon njariñ yi bari na lool kon su ko defee ñu ngi soññ suñu bopp di soññ mboolem ko aju ci daayira Muxaddamatul Xidma te yor daare alquran eh, ak foo mën a nekk ñu bàyyi xel fii bala la 30 allah lu ñu man ci njàngum alquran ak xasida ñu def ko eh, suñ mën ku mën a teew ci bis bi nga teew ngir eh, def tawasul ci suñu borom ngir joyal suñu ñaan ñi nga xam ne teewuñ tamit képp koo xam ne yaa ngi gis kàddu gi wala nga di ko dégg loo man ci alquran ak salaatu ala nabi ak istixfar nga def ko lim boo ci man nga yéene ko mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ñoo dawlu rawatina eh, njabootuk sëriñ bi rawatina taalibey sëriñ bi rawatina jullit yëpp it fuñ mën a nekk kon daal ñu ngi ci soññe di ci yaakaar sunu borom tabaraka wa taala defal ñu ci ak njëggal ak yërmande barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon bis baa ngoogu le 30 décembre lay doon di alxemes ci Touba Darou Khoudoss ci Liwaawul Hamdi programme bis ba nag niñ ko baaxoo defee at mu jot dara soppiku ci bu ñu xëyee danañ tàmbali njàngum alxuraan ak xasida daaree alxuraan yeeg ñi bëgg a jàng ñëpp bu ñu ñëwee ci Liwaawul Hamdi fi la ñuy jàngee alxuraan ak xasida naka noonu tamit xam ngeen ne niñ daan ni ñuy ñaanalee ñi nga xam ne ñoo fi jógee noonu la ñuy taxawoo it ñi nga xam ne ñoo wéradi ndax xam nga ne deret dafa di mbir moo xam ne kenn mënu koo jënd kenn mënu koo defar maanaam suñu borom rek moo ko mën a defar ci doomu aadama la ko def kon bu ko doomu aadama manqué doomu aadama rek moo koy mën a may at mu jotit dañ daan def fii ay don de sang maanaam woo hôpital yi ñu ñëw ñu maye deret kon loolu itam ñoo ngi ciy soññe eh, ci kenn ku nekk ku mën a maye deret ku ne ci bis bi fii ci kër gi ci Darou Salaam kër Baye Mor Diop si jën kër Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma boo fi nga fekk docteur yi bu ñu àggee ci bernde yi niñ ko baaxoo defee bernde yi fu ci nit nekk di jàng rek incha allah bernde yi dina la fekk suñ demee ba julli tàkkusaan ba noppi nag waxtaan wi nga xam ne moom lañ daan amal te kilifa yi di ko fekkee te sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna di ko waxtaanee itam noonu la amee nam daan amee kon ñu di leen yëgal ne itam képp koo xam ne jàng nga moo xam alxuraan la wala xasida la wala ay askar la te mënoo ñëw boo jokko ak numéro yi boo leen ko joxee incha allah dana agsi fi noonu 76 558 70 70 Serigne Abdourahmane Dieng ak 77 615. 04 12 Ahmadou Ndiaye Nguerane kon numéro yaa ngoogu ku ci woote ku nekk da nga jot borom numéro yi bu ko defee loo leen wax loo jàng lu nekk danañ ko boole ci njàng mi kon ñoo ko déggandoo kon ñu ngi ci xaar ñëpp di ci séentu ñëpp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu àggalantu ci ak jàmm tey lépp luñ koy sàkku yi ci ay tiyaaba jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo dawlu sunu borom dogal ko te jot leen ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sadaqallahul azim. yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a tey xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 10 46 wala 77 698 96 53.